cëj asalaamaaleykum asalaamaaleykum ma ngi di nuyu ma ngi leen di nuyu ñu mbokki taalib yi murid yi fi daje yëpp tey yéen mbokki taalib yi murid yi fi daje yëpp yéen ñii bokki jullit yëpp ak yéen ñii bokki jullit yëpp ak fuñ mën a ma ngi di siyaare te di leen balu àq maa ngi leen di siyaare te di leen balu àq tey bale àq tey bale àq tey fàttali sama bopp. tey fàttali sama bopp. di leen fàttali. di leen fàttali. li nu fi indi bàyyi nu fi. li nu fi indi te bàyyi nu fi. ñu yàlla sunu borom. ñu yàlla sunu borom. wala takunu kallati nastala fa ansihum anfusahum. wala takunu kallati nastala fa ansihum anfusahum. noo ngi ñaan nag. noo ñaan nag. ñu ngi sant itam. maa ngi leen di sant itam. tuub. tuub. tuub jëm ci yàlla sunu borom. tuub jëm ci yàlla sunu borom. waxtu yi waxtoom la lool. waxtu yi waxtoom la lool. waxtu yi waxtoom la lool. te sunu borom moom. te sunu borom moom. li mu diggee woon. li mu diggee woon. du ko wuute mukk. du ko wuute mukk. moo ne ku ko tuubal mu jéggal la. moo ne ku ko tuubal mu jéggal la. ñaan nag mu jéggal nu. noo ngi ñaan nag mu jéggal nu. maa ngi sàkk itam mu def tawasulu ci ci tuub gi. maa ngi sàkk it nu def tawasulu ci tuub gi. tawasulu gi nag moo di. tawasulu gi nag moo di. mu sàkk sarax. di sàkk sarax. sarax soo xam ne tawasul ci tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax soo xam ne tawasul tuubal suñu borom rek lañ ciy jublu. sarax su ne bu ko bu ci xeeb waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara. sarax si nag bu ci waaye xeeb dara bu ci waaye yéem dara. fu ñu ko dajalee itam nañ seet ñi ko ñi si gën a lot. te fu ko dajale it nañ seet ñi si gën a lot. te ñu jotal leen ak jaamu yàlla. te ñu leen ak jaamu yàlla. ñu leen ko jëm ci ñoom. ñu fab ko jëmee ko ci ñoom. ñoom ñoo ngi noo ngi ñaan itam suñu borom defal na ci tawféex. noo ngi ñaan itam suñu borom defal na ci tawféex. ci jéggulu gi jéggulu gi. ak ci jéggulu gi. mu nangul nu ko. mu nangul nu ko. xéewalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ko laaj it. xéewalam yu bari yi nga xam ne dafa digle ku ko laaj it. ko ciy laaj. noo ko ciy laaj. xéewalam yi. ci xéewalam yi. ak ngëneelam yi. ak yi. ak ndimbalam yi. ak ndimbalam yi. maa ngi xamal bokki jullit yëpp nag ne. maa ngi xamal bokki jullit yëpp nag ne. maa ngi jokk bokk lislaam gi. maa ngi jokk bokk lislaam gi. képp ku ma bokkal lislaam. képp ku ma bokkal lislaam. maa ngi jokk bokk gi ci yow. maa ngi jokk bokk gi ci yow. li may waxee sama bopp laay jublu li may wax nag sama bopp laay njëkke waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. waaye nag ñun ñëpp nag noo ko bokk. fàttaliku sunu borom daal. fàttaliku sunu borom daal. bëgg naa nu def ko lool. bëgg naa nu def ko lool. tawasul ci daan gi laaj gi ñu ci laaj gi ñu def ci tawasul def ci tawasul tuubal ko. laaj bi ñu koy laaj itam. laaj bi ñu koy laaj itam. ak tuubal gi. ak tuubal gi. nu tawasuloo jëm ci moom. nu tawasuloo jëm ci moom. tu sarax sàkk sarax yooyu. muy yooyu. waaw ku ko mën daal bëgg na def ko kem ci waaye man. ku ko mën daal bëgg na nga def ko kem loo ca man. waaw rawatina nag ci taalibe murid yi nag. rawatina nag ci taalibe murid yi nag. maa ngi digal bu wóor a wóor. maa ngi leen di digal yéen bu wóor a wóor. te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ci tawasul yi. te it bëgg ñu jàng alxuraan boole ko ci tawasul yi. lu waaye man ci ay kaamil na ko def. lu waaye man ci ay kamil na ko def. def ko tawasulu. def ko tawasulu. di tuubal suñu borom. di tuubal suñu borom. te jégalu ko. te jégalu ko. Ah, am na lu sëñ Tuubaa waxan nag. am na lu sëñ Tuubaa waxan nag. aadama ju mu ne doomu aadama ju ne. yàlla yàlla na ko ak ñaari biir. yàlla taqale ko ak ñaari biir. biir biirub jëmmam ji. biirub jëmmam ji. ak biir bàmmeelam. ak biir bameelam biirub jëmmam ji. biirub jëmmam ji. li ko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 yàlla nga fi bi voilà maye yoon yi